في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماه ما الأبصر السفر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وخير خدمه وأمته أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi teew ci barab bu sell bu tedd bi di leen siyaara bu baax ci seen teewaay ak ci weer wu màgg wi ñu nekk ak bis bu sell bi nga xamante ni moom lañ jubal si muy bisu màggalu Tuubaa te jataay yi ak yi ni ci jataay yi nga xam ne dañ koy def ngir di ko waajale bis bu tedd boobu nga xamante ni ah, bis yi gën a màgg ci lislaam la bokk yi gën a ci ñun la bok te moy bis bi nga xamné mu la cheikhna ahmadul khadim juggé won doon liggéeyali boromam doon liggéeyal l'islam kon ci kaw lolu ñu ngi siyaare bok yépp nga xamné téw nañ fi ginnaw bi ñu siyaare kilifa yoon wi a cheikh sidi del muftar ak kilifa barab bi di serigne cheikh sayyid ak waa kër seex soxaybu mbàkke ak waa kër seex abdulahab ak waa kër seex saalimu ak waa kër sëriñ tubaa yépp ak mbokk taalibe yépp tay ji nak université di magal mi ngi dellu si di andi waxtaan wu am solo bo xamanteni ni nii yell na lool ñu waxtaane ko ci barab bu melni nii muy waxtaan wo xamanteni ni waris na ko wo lool waris na ko bàyyi xel lool lool itam wax dafa bokk li tax université di magal jub muy li nga xamne mom la mbokk yu bax yi di def yi ci biir daayiratu faratul ayn manam ngir rek bëgg li nga xamanteni ni moy mooy bëgg Serigne Touba mu jiitu ci nit ñi te moy xam-xam bala ñoo xam bala ñoo jëf ñu xam kon dana yellu lool ñu taxawal euh, jëf yu mel nii waaye rawatina waxtaan wi nga xamante nii moom lañ ci bëgg a waxtaane ñi ngi nuyu ñëpp kon di dalal ñëpp ci turu daayiratu xuratul ayn waaye rawatina ci waa kër Serigne Tafsir Boubou Sile mi nga xamante nii moom lañ euh, dara jaalee waxtaanu tay wi takkusaanu tay gi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen dalal di leen wax ne ñëw ngeen ci seenu barab ndax sëriñ tafsir buubu silla day day kenn ci ñi nga xamante ne ni ñoo àndoon ak sëriñ Touba doonoon nitu yàlla bu baax ku ku liggéeyal lislaam moom itam ñoom itam ñu ngi leen di dalal bu baax ci jataay bi te di wax ne ci mujjub jataay bi bu sooba yàlla ñoom danañ indi ñoom itam seen kàddu kon ngir njëkkante ak waxtu wi rek dañuy daal di ñëw ci li ñu nar a waxtaane tey bi mawdon bi tey insha allahu taala mi ngi nara doon fiqhul awlawiyaat fil muridiya fiqhul awlawiyaat buñ ko waxee ñu ngi jubloo wax lépp li nga xamante ne nii mooy yi am solo yi ëpp solo ci lépp lu ñu war a def ndax kenn ku ne xam ne ne lislaam bi mu ñëwee sunu borom yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko jàngalee dafa am yoo xam ne ay farata la ko def am yoo xam ne ay naafila la ko def wala ay yuñ sopp la ko def am yoo xam ne ay ngëneel la kon yëngatu bépp lu doomu aadama di yëngatu rawatina ci diine dafa am li nga xamante ne nii moo gën a farata am lu ca topp am lu ca topp loola nag xam ko bu baax ràññee ko bu baax a baax dana tax mbooloo mi seenu dox gën a jaar yoon gën a gaaw gën a ñoŋ gën a bëri njariñ kon mawdox bi ci foofu nar a jëm muy mawdox bu am solo boo xam ne boroom xam-xame lislaam yépp teel na leen ba bind nañ ci ay téere waaye bu suñu bésu tay bi nag ñu ngi ko def ñu ngi ko nar a def ci biir al muridiya muy yoon wi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa xàll te doonu lenn lu dul yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi nan la ñuy def ba nga xamante ne nii danañu xam bu baax sëriñ Touba liggéey bi muy liggéey bi mu doon liggéey ak ñun ñi ñëw ànd ceeg moom lan lañ war a jiital ak lan lañ ca war a teg nan lay toftaloo bu soobee yàlla loolu danañ ci ñëw ah, dana kii def waxtaane bu soobee yàlla dana ñëw ci loolu xamal ñu Maodo bi gën ñu koo leeral leeral ñu bu baax tamitam nan la ko sëriñ Touba dundee woon nan la ko indee tamit ci ay mbindam waaye lan la ko xulafaa am yi nga xam ne ñoo ko fi wuutu woon ci seen biir liggéey boobu ñu doon wëyal liggéeyalu Serigne Touba gi nañ leen xàmmee woon li gën a farata li war a jiitu ak la ca war a topp naka noonu tamitam dana ñëw ci li nga xamante ne nii mooy noo loolu nga xamante ne nii ñi lañ war a ràññee lenn lu ne barab bañ ko war a teg ndax farata la wala ndax sunna la wala ndax mandóob la wala ndax lu war a jiitu la wala ndax lu ñu war a mujjee la dana ci leeral ci anam yooyu yëpp waaye dana ko wax bu ko waxtaanee ni ko Serigne tubaab bindee ak ni mu ko dundee woon ak magi taalibe yi àndoon ak moom ak ginnaawam ni ko waa këram yi ko fi wutu woon ak taalibe yi ñu àndaloon dundee dana ñëw tamit nag ci suñu jamono jii ñu tollu nag nan lañ ko war a dundee ndax dafa mel ne loolu am na ci ay ay jafe-jafe yu ci am dafa mel ne mag ñi ci diir bu gàtt doxoon nañ dox bu gaaw a gaaw def ay résultats yu mag a mag a mag ci temps boo xam ne mën nañu wax ne record la ndax gàttaay bi dafa mel ne loola xaw naa wàññeeku bu a baax te bu ñu koy seet ba ca biir mel na ne li ci ëpp la ko waral ñàkk xam li war a jiitu ak la ca war a topp dafa mel ne dana ci am loolu moo tax mu nekk waxtaan wu am am solo eh, ki ñu ko war a defal di Serigne Souhaïbou Kébé Serigne Souhaïbou yaa yaakaar naa ñu bari xam nañ ko dëkk ci ëtt bi mu nekk di satub Cheikh Saliou Mbacke jàngee ca daare Serigne Souhaïbou bu Mbacke ji alxuraanul karim ba mu fa jógee tamit mu àggalee ji ca daare maamam Cheikh Saliou bu Mbacke ci daara ji ñuy wax njuur fa la àggalee jànga fa xam-xam ca noppee tamit Serigne Saliou ci boppam euh, téye ko fa dénk ko njàngaleem xam-xam ma ci daara ji nga xamante ne nii mooy daara yi daara yi njuur jaar na ci yeneen i daara ci fu mel ni ñaaru fu mel ni xelkom yu ci bëree bëri dafa ab diir bu yàgg boo xamante ne nii bi mu àggalee am njàngam ba yorol sëriñ mu njàng moomu gëstu na ci anam yu bëree bëree bëree bëri ci wàllum ci wàllum njàng ndax sëñ bi ñuy waxal donte la ci daara la jógee waaye ku xam lu bëree bëri la ci ni jamonoy doxee ak ci yi nga xamante ne nii jaadu na ab jullit rawatina taalibab sëriñ Tuubaa mu xam ko ndax bokk na ci ñi yoon wi di sago ndax jóge ci daara sax Saaliwu waaye mel na ne fi mu àgg ci am njàng ak ci gëstu boppam ndax yu ci bëri nekkul na dañ ko ko jàngal ndax euh, def na nekk na koo xam ne suñu borom dimbale na ko ba làkk yu bari yi ëpp solo yi ñuy jëfandikoo ci àdduna bi tey jii ku ko ku ci yàlla may ak xereñ la lu mel ne lu loxal arabiya moom waxaale wuñ ko làkk arab bi nga xam ne day làkku lislaam arab yi dong moomuñu ko di làkku Serigne Touba ndax Serigne Touba lim bind lépp ci la ko bind ak euh, làkk wi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci réew mi ak làkk wi nga xam muy français ak làkku anglais bi nga xam ne àddina bi yëpp la daj ak langue espagnole yooyu yëpp suñu borom ku ko ci defal ak ubbeeku la ba mën na cee bind mën na cee jëfandikoo lépp lu ko soob te teewut te moo ne ca daari Serigne Saliou Mbacké la la jóge muy ku nit ku ku liggéey yoon wi tamit ci ay gëstu yu bëri ak defar yoo ay ay ay jumtukaay yoo xamante ne nii dañ fay dajale maanaam li ñuy wax ndonal di jógee ci Serigne Touba moo xam lu ñu bind la ak lu mën a doon ku ci def ab liggéey bu ama am solo la. bi mu jógee foofu nag nag la dugg ci àdduna nag gëstu yu bëri di liggéey waaye yemut ci njàng mi mu jàngoon fii kese bi yàlla defee mu jógee ci réew mi dem Europe tamit. gëstu na fa lu bëree bëree bëri ba nekk na koo xamante ne tey jii dañ koy ñaanal suñu borom mu sàmm ko wattu ko dañ ko dolli xam-xam waaye mi ngi liggéeyal yoonu Serigne tubaa ci li nga xam ne soxal na sëriñ tubaa lool muy xam-xam kon ngir gàttal rek kooku mooy Serigne Souhaïbou Kébé mu moo ñu war a waxtaanal ci mawdu bu am solo bii te mooy fiqhul awliyaat fil muridiyya lan mooy li nga xamante ni moom la ñu war a gën a jox yitte yan mooy yi nga xam ne moom la ñu war a gën a jëmale suñu yitte la ca topp door caa war a topp kon Serigne Souhaïbou ma jox la kàddu وسلاماه على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp di ziyaar ñépp di jiital nuyoo yi ak ziyaar yi sunu kilifa yi fi nekk di Cheikh Ahmadou Mbacke bi jiital penc mi ak mbooleem njabootu Serigne Chouaïbou bu gépp di nuyu it kilifa yi fi neew teew ci jataay bi ak boroom xam-xam yi di ziyaar bu baax it njabootu sëñ tafsir Bouba ñii fi teew di ndokkeel sunu bopp ndokkeel mbooleem njabootu Sëñ Tuubaa gi ci ndamul lislaam lu rëy lii ñuy bëgg waaja màggal di fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi kon yàlla nañu ko yàlla fekkele te defe ko na na na nañ cay amee ngërëmul sëriñ bi te lépp lu ciy sëriñ bi diggee ci ay may yàlla sotti ko ci suñ kaw ñu jariñu ci barke sëñ Tuubaa euh, tomb bi ñuy bu ñu seetloo ne mag ñi ak ñun am na ab wuute su ndaw sooy seetlu booy xoolee ndax ñun ci jamono ji ñu tolloo dafa mel ne la mag ña jotoon a def mënuñu koo def ñun koy xool ci lu matut ben téméré at ay mag yu ànd ak seen pëstéef ñu yar leen yar ba gën fexe nañ ba fekk fi ñu toog nii doonoon ab sahara wala ab gottu àll bu kenn munta dugg ngir ay ay raba fi nekk ñu soppi ko def ko tey ñu toog fi ni di fi di fi jaamu yàlla di fi tuddu yalla di fi jang alquran ba ag ci barab bi don manes na ne moy ñaarelu barab ci senegal te inshallah allah jëm mom yalla na bi njëkk ci kaw suuf rek gannaaw barab yi ya. kon ñoñu lu doon seen mbóot lan moo nekkoon seen secret ba tax ñu mën a def lool mooy ne ñooñu dañoo wo wormal woon dañoo respecté woon ci ni ñuy doxee sëñ bi da leen a yaroon ci ñu xam lañ war a jiital ñu jiital ko lañ war a euh, jëme gannaaw ñu jëme ko gannaaw maanaam fiqhul awlawiya moom ci ci principe boobu lañ doon dund ñu xam ko ñu xamuñ ko waaye sëñ bi ko xam dund na ko def ko ci seen biir ñu koy dund moo tax jëf juñ jëf da cay feeñ fiqul awlawiyaat muy xam euh, ku mu nekk ci yow nga dund ko say jëf jëf joo jëf day nosu jëf jooy jëf day gaaw a feeñ njariñ la kon dafa mel ne ñun ni al khalaf dafa melni li ñi manké moy dafa melni ne nénal lolu loolu mom nekkon ci mangi kon lan mooy fiqhul awlawiyat buñ ko doon mën euh teunk dañ nan moy fiqhu al fiqhu bi maratib al amal xam jëfi nit ku ne waccu way bam wara taxawé yàlla yemalewul li mu bëgg lépp yemalewu ko am na loo xam ne du ko bëgg ba àgg ci ne da da la caa nargan da ko war a def boo ko defut ay daan topp la muy farata boo xam ne da ko bëgg sopp ko lool soññ la ci lool boo ko defee dala ca dig ay yool yu baree bare ak i tuyaaba ñu sopp ko am boo xam ne da koo bëgg dig la ci tuyaaba waaye ak gut ci soññ la lool am boo xam ne da koo daganal rek noonu nga xamee ne ci li dagan lim lim bëgg yi nga def ko dala ci indi ñetti esel euh, ñetti euh, yéegukaay ñetti tomb euh, tolluwaay lim bañit noonu la la ko tegale lépp lu nit di def tomb bum mu dugg am na ca lu gën a yàlla lu gën a farata lu gën a jàmp kon lay xel mooy jiital loola am na lu loo xam ne wëreesu koo jiital lay farata mooy bañ koo jiital te jiital la jiital ndax bu ñuy seetlu ci mbindi Sëñ Tuubaa dañ gis ne am na fu mu naan laa tastaxil lisa lisaana bil fuduli wa mil anil afdali wal mil anil anil faadili wa mil ila al afdali an mafduli lolu boo xol moy lu ne loy dugg setal setal la ca gën nga def ko te baye le yes waxu sax le yes la xawa bax da ngay set nam gëne le gën a baax nga def ko door a def la leneen la kon lolu mi ngi bu wax lolu mi ngi def ci ñun mabda wala principe respecter al awlawiyat fiqhul awlawiyat ci mouride bi li yéeme nag mooy bi may gëstu ci tomb bi mooy fiqul awlawiyaat termo bi bi mu amee yàggul dafa mel ne Yusuf Xardaawi moo ko fi indi kon dañ naan lu bees la ab concept la bu bees waaye li may yéem ci Sëriñ Tuubaa mooy bi ma ciy gëstu damaa fekk mbooleem luy mën a wane ni lii mooy fiqul awliyaat fekk na wax na ko ba noppi bind ko boo demee ci téeréem ay mbindam moo xam Tiri yi wax ci tawxid la wala yi wax ci fiq wala yi wax ci tasawuf wala yi wax ci tarbiya yii ay wasaayaay ay xikam yi boo buntu boo dem da nga fekk lu doy sëkk ci ay nusuus yoo xamee ne mën nañ ko jàppee manhaj bu nga xam ne du lu ñuy tandatu du lu ñuy sosal di ko waxal sëñ bi lu yees la ñëpp ko war a ko war a dadi sëñ bi dañu da ci jitu jamono sëñ bi man nañ na ne jitu na ci xardaaw ak fuqaha al anwa'sirun yep mo len ci jitu fek na man dama dama yem sax ba nga xamé ne sëñ bi nim mu ko tasilee tasil al shar'i yem na ma lol lol lol lool bu buñ démé ci majalul majal bo duggu ci mbindi sëñ bi da ngay fek num koy toftalante na li ye gën teg ca lii teg ca lii teg ca lii boo demee ci wàllub euh, li ñaan tasawuraat yi muy nit nan euh, pas-pas yi wala gis-gis yi dala ci indil du aw aw aw aw gisiin wu leer ni la lii a gën nañ jiital lii teg ca lii teg ca lii teg ca lii maanaam bu dee ci majaalu tasawuraat danaan awlawiyatul al iman ala al loolu am mëbda boo xamee ne foo gis ci mili sëñ bi da koy da koy da da da da da ci da koy da koy da koy feddli baax baax misaal yi mel ne awal waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min altawxidi qabla inchigaalihi bil infiraadi bi dicri waxdo aw bil jihaadi kon awlawiyatul wala priorité wala jiitu gën a farataak pas-pas ci jaamu yàlla loolu ab principe la boo xamee sëñ bi jàngal nañu ko dañ gis it ci buntu xam xam day indi awlawiyatu wala العلم على العمل العلم افضل اخي من العمل واسه ففاز من له حسن خم خم مو جن جف نغيس كي mbiri xam-xami diine yi mu indil la summata taqdimul fatal fiqha ala tasawufin wujubu khadin jala fiq mo gëna for tasawuf mom la moy mo priorité nga xamé ne nonu mu koy waxé non la ci yare mourid bi li lay jox priorité door a jàll ci lé nga xam bu bu bàyyi won li jàll ci lé xalal am doxeenu li niñ bëggé niñ bëggé yare mourid bi yarba dana dana manké lool buñ démé ci lool moy ci majalu tasawurat bu ñewon ci majalu al ilm wal ma'rifa da ngay gis mu indi awlawiyat diraya ala riwaya fal ilm la bi kathrat لا riwaya bal innahu nurun نور faqsu bihi wajal jalil ya fata ak euh lu melni ci أولوية علوم الظاهر على علوم الباطن بو خازي با نييو دي جانغ ناغا جوخ بريوريتي درايا ولا خم غو خوت غودول يام تي اي موكالي تكست ريك واي خم اسيميلي كو تي سا خيل دوندوكو با مان كو генي وات جارينيو جارينيتي دو يام ساخ تي دوندوكو خام كو واي تخلق امنا كو سيني سيني سيني سيني سيني بشير دان واخه نينا باينا جوغينا سي تحقيق تحق تحقيق اك سي تحقق اك تخلق واو لولو لولب ميغي جوغي سي موي اولويه الدرايه على الدرايه على الروايه كون بي با سي صح تجديد الدين سي علوم الاسلاميه ماغي جيغلو سي باتو عربي بري خمنا باتي سيغ بي رك لا نيو جيفاندي كو خمنا موي نيمي دينه mooy gën a jox bi mu gën a jox bële priorité sax da cee feeñ bokk na ci buntu xam-xam tamit lu muy feeñee ci awlawiyaat yooyu mooy awlawiyatu ulumi shar'i ala ulumi al-ala bu ñu demee ci masaliku ñaan dara cee feeñ bu baax a baax mu ne wa afdalul ulum bil itlaaqi tawxid rabbina ala ittifaaqi وبعده التفسير القرآني ثم الحديث قال الديماني وبعد وبعد وبعد وخيرها من بعد ذا وذين علم التفاق علم التفاقه مزيل الزين وبعدها لابد من على الدنيا nga xamee ne indil na la ne la bu ñëwee ba ci xam-xamu xam-xam di ko jàngit nañ priorité bi mooy xam yàlla ba noppi door a xam kawlu bi xamal yàlla mi la fi indi door a xam fii nga nekk fan la moo tax day jox priorité yàlla ak xam ko door a xam euh, science yeeg xam-xam yeneen yi waaye teewut euh, yëpp la yëpp yëpp la jël nga xam ne noonu la ko war a respecté bu ñëwee yi yëpp mooy ci wàllu mbindam rek xam naa ne dafa bari ba mu ëpp nag xam naa dama jee tànn tuuti waaye li ma tànn sax xam naa ne bari na lool pour rek ñu wane ne. idée bi dafa nekkoon ci téeram kon ku yar ku ne rek loolu teel na da nga ko dund tey doo ko yëg la shuuriyan da nga dund fiqhul awlawiyaat donte xam nga ko xamoo ko buñ la ko dajaleel nag théoriser la ko da nga gis ne ndekete sëñ bi waxoon na ko noppi bu ñëwee ci wàllu pratique muy jëf sëñ bi toujours wala waxtu ne day jiital jëf joo xamee ne eh, njariñam dafa yaatu moko ko da danaan la mo gën jëf jo xamee ne njariñam dafa yam ci ben sa soy jëf jëf ju baax diko wut da ngay fek da ngay jema jëf jëf jo xamee ne njariñ li du yam ci yow waye day dem ci ñu bare bare bare neena na afdaliyatul al amal al mutaaddi ala al amal al qaasir loolu wa afdalul ulumi ma taaddadat lahu fawaidun كعلم قد ثبت عن جالس جهل أه و وقبح يدفع وكل ما لذن رشاد ينفع لولو كون وانا خم خم كوم بو نيكي سي ياو دا نا لا ген سي رير دا نغا سي ген كينن اك رير صح لولو تخنا خم خم دي اوب سولو جيف جيفيت بو نكو بو ديمون باي جيف تا لولو لي بو نكو براتيكي دغ دغ سي ني ني ليغيلي سن تيبا صح دا سي فينال مثلا dëkk bu soxla ay ay jàngukaay wala bu soxla ay ay ay ay fajukaay foofu mooy priorité bi ndax fa la njariñ la ëppee waaye bu boobaa yeneen ya dañ leen di delloo gannaaw te jël li ëpp solo kon ñu xam ne buñ neenale mabaadi yii ñu sëñ bi jàngal ci ñun la moo tax sunu dox sooxe waaye sëñ bi moom wàccoon na fekk na jàngaloo nañu ci biir jëfit sëñ bi wane ne ne wan jàngal nañu ne jëf ju sax moo gën ëpp njariñ jëf juy e, juy dog wolof sax da koy wax ne nga nga nga nga nga may ma jën nga nga jàngal ma napp moo ma gënal waaw ndax bi seet ba am lu ma napp lu lu lu kon kon sëñ bi wax na ko nee na wa maa yusaffil xalqa wa huwa maa udim bi muy lim yi gënante wa maa daa ne wa maa yusaffil xalqa wa huwa maa udim ndax ba ci werd sax boko defon tay tout lay def ci yow waye boko saxale ci lay dora a jeexe ji dora dora dora feñ kon bi principe la boo xam buñ ko jëfëndiko deug deug deug man na changer sun dund gi bu baax baax te yaakaar naa li ñuy jàmbat lu ci biir jëfit won nañu ne euh afdaliyatul kayfi ala al kam moy qualité mo gën quantité jëf ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju sell ju ànd ak positif mo lum lum tuti-tuti mo gën jëf ju bari té sellul lolu indi nako ci ay wax yu bare bare ci bir masalikul jinan ci boy taxaw jangal quran wax na ne wa ayatun wahidatun tudubbirat fiha tafuqu xadmatan minha khalaq ben laye rek nga setandal ko kon loolu mooy alkayf anal kam mo gën jàngukaay boo seetantalul waxaat ne ne wataatul wataatun batinatun ba ci moy wataatun batinatun afdalu min zahiratin ala ala ala ittifaq lam namin moy qualité mo gën quantité jaamu yàlla go làqatu ci bir keur ci biir guddi diko fa def mo gën nga koy gën diko ko ngisale yu gon gën ci biti diko ko ngisale ndax neena mo gëna jafe kon bañ waxtu yi jël ci lu bari bari waye misal yu bari bari bari buñ démé ci fiqh manam majaalul fiq maanaam am na fu mu naan واعلم بأن الدين شطران هما شطر شطران qabli ba'd al-hukama fa الحكماء tarku al-manahi مطلقا آه، آه، دعي المناهية لباق أطلق والثاني فعل كل شيء أمر به ومن يديمه يكفل أمره ني دين نياري خاج لا ديفين ديغال تري واي سيغ اولويه الاجتناب على الامتثال باي تري فخي با دو تاق لي يالا باج مو گن ديف صح ديغالي kon ab logique la bo xamé ne sëñ bi dako théoriser bam lér nañ ni indi amna ci walu ci walu tasawuf buñ demee danañu indil ne euh awlawiyatul dirasa ala riyada nit ki bala sóobu ci yoonu yàlla da wara a gëstu ba nopi min atabaxuru fi ilmi alxaqiqati ma ilmi shariati min qabli riyadati إذ ارتياد مع الأوراد qablahuma min jaalibaati gururin wa nikaayat am na benn fatwa bu mu defoon ci Mauritanie boo xamee ne ab aalim Mauritanie moo bindoon ab ab ab laaj wërale ko mboolem borom xam-xam yi nekk ci Mauritanie ba mu ko àggalee ci sëñ bi la ko sëñ bi tontu mooy an ajabna bi afhamin mutaharatin min gayri mardaati man ansha albariyaati inna alladi إن الشغال الذي بالجهل متصف بالفقه بالعقد والفقه من قبل الحقيقات فرض ومن لم يكن بالجهل متصفا فليشتغل بالمقامات السنيات كن لي مو مدان كو رير كو امغول خم خم بلاغا سوبو تي يونو تصوف دا غا ورا جانغ نوب يوي ييب بين ديي بي تصوف سن بي دانيي اندي لات ني التخلية قبل التحلية وحنا كفو بري بري في بير حكمة بي بينكو يلاتي والو استعازة ليرالنا فنيت استعازة تخلية لا بسمة لا تحلية لا كون دا داني والحكمة في تقديم التحلية عن جميع العيوب والرذائل على التحلية بالآداب الفضائل وتقديم الإعراض إعراض عن كل ما سوى الله تعالى ne li tax ñu wara jital taqdim tahliya ci tahliya daal koy leral kon moy ci ba ci tarbiya bala nga def ci ndab leru yàlla da ko war euh wa wax fu ko waxaat wa tarkuna al kadhiba ya ikhwani افضل من تلاوه القران وما التحليه قبل التحليه أولوية جهاد النفس على جهاد الخير lolou lu muy principe bu muy wax bu baax baax la tamit ci biir ruumoo jihad an-nafs ya ikhwani falakum ghadan bi jinan wa huwa la am bi jihad al-akbar kon nonu la ñewé ci mbind sëñ bi kon du luñ koy jabutul du luñ ko waxal waye moko bind yar ci ay talibé bu baax baax bu ñewé nak ci bi mu di woté ndax sëñ bi lutax mu am euh ndam lu reuy li mu am ci woote bi momit dafa respecter fiqh al awlawiyat ci bir woote ndax dafa ñëw ci nek ci société bo xamé ne xamuñu li kasratil jahli ala ala ala ala naas ixtafa hada wa innama alayhi لكثرة الجهل على الناس ارتفع كان لي بريوريتي خمال لين دا فا نيك فو لندم دا فا نيك فو نيت كي خموت يالا موتاخ الفرار من من الكون الى المكون لول لا نجا ديف ген ريتيري وو سي سوسيتي بي دفر بوبام دفر اي نيتام باج مان مو دوغات نك mom sax mo ñëk retiré wu ndax li priorité boba moy jéma defar moy lool te loolu mooy xool afdal lool xamna dama ko indi indiwut fii awlawiyatul defar kenn do defar société bi te lool mom ci bopom la ko njëkke defar bopom ba mat sëkk do ra defar mbolom mo da défar retiré wu génn défar wu ba mat sëkk ñëw nak defar mbolom min al kawni ila al mu kaw bi mu defaree ba ba ba ba mat ñëwaat nag di leeral euh, bi mu leen di defarit ci wooteem dinañ seetlu ne ci bàyyi na xel bu baax a baax li gën a ñor li gën a yitteel mu tàmbale ca mooy ñëwut rek tàmbale ci loo xamee ne gënta jàmp maanaam ñëw di tabax jàkka bu ko doon def tey kon euh, wala mu ñëw continuer daara ja ndax daara yaa ngi fi noonu xas mais li nit ñi soxla woon jamono jooja li société bi soxla woon li humanité soxla woon mooy ku mbër mu tibbe ca yàlla mat sëkk sëkk sëkk lëndëm gii nekk ci àdduna bi ñëw leeral ko moo tax soxlawu li ñu soxla woon weesu na ay téere weesu na rekk ay li li ci téere yi moo tax mu def nag thawra الثقافية الثورة العلمية بمكبو التربوية نيوني كوفي لي تيري دونغ اندي وون نك موم داراي فيسا في دال فلو ديم مان كو فامي مان داما ميسيون يالا سان سلام دا بيغ اغلي شانج سوبي سوسي سوبي خولي سوبي نيب دفر نيب موم في ني موتاخ بو نيوون دي ديفاري جاكاك دي ديفاري دو ام مانا li li fi mu tàmbalee mooy fi ñu war a tàmbalee moom kon respecté na bu baax a baax a baax fiqul awlawiyaat boobu mooy binaaul insaan qabla binaaul awtan loolu it principe bu am am solo ci noonu la indee tarbiya tarbiyaam bu bu yéeme boobu mu indi mooy al irada al himma al iqbal ila llahi taala bil kulliya xamee ne ni mu ko dekkalee mooy mooy ni ko yenn sansaram indi woon rek lolu seigne Basiir wax na ko baax nee gis xamuñu won sax ku ñuy tuddee ay taalibeem al muridun ci fi ci sun gox bi mu ñëw dekkalaat himma bi nekkon ci euh sahaba yi ak salafu salih te umma bi bañ neenalé himma bobu ray ko ci la asrul inhiyar wal inhitat am ba ba suñ joni yàlla ji li feeg dekkalaatuñ himma boobu suñ tubaa bëggoon ñu def ko uluwul himma fi talabillahi taala uluwul himma fi l iqbal ala llahi taala uluwul himma hatta fi binaay dunia ah waaye bu ñu bëggee doon ay ay réew yi yu topp tubaab yi rek duñ dem fenn ñun ñoo war a yilif tubaab bi tubaab yi doon suñu suñuy jàmm ah himma boobu nañ ko yëkkatiwaat wal himma tarfa wal himma na nga ko waxee sax bari na ma koy waxee dajal naa ci ay bayit yu bare bari nim nim ni mu yëkkatiwaate kon pour njëkkanteeg waxtu wi non xool daal ci ni mu doon tarbiya ni doon defe daawa lu ne da xool ne day indi yu gën a ñor mu tàmbalee ca door ñëw ca euh, la ca topp noonu la defare ay taalibeem yar leen ci gis nañ ne moom bi mu fu nekkee kon nit ñi euh, minal mulki ilal malakut mooy jële leen ci àdduna bi xamal leen yàlla bañ xamee yàlla ba noppi nag dañoo ñëwaan ñëw euh, minal anfusi ilal afaq mooy defar priorité yi booba day jóge ci comme defar na ñu mën a defar ñooñu ñoo war a defar nit ñi ñoo war a defar àdduna moo tax gis nañ ne ci jamonoom priorité yi yi nekkoon yoonu mu murit booba min dóori tarbiya ila dóori libaada lañ defar nit ba noppi te nit ku koy defar ci daara nga koy defare moo tax priorité moo nekkoon ci tool toj suuf si defar ko ngir defar nit nit door a defar suuf moo tax ñëwuñ ci rek njëkk tàmbalee tabax ay jàkk waaye daara yi lañ njëkk a defar samp daara yi kon min ne sama ila al-ardi boobaa ñim defar bañ jógee ci asamaan ba jële fa lañ fa jële ñëw nag war a defar suuf si gannaaw biñ fatmoo afaaxul malakut ñëw nag war a fatmoo at afaaxul mulk ci noonu gis ne nañ ne priorité yoonu murit ci jamonoy sëñ bi lii nekkoon priorité mooy al irfan xamal nit ñi yàlla léegi nag biñ nit ñi xamee yàlla gis nañ ne min al irfan ila al moo tax ci lañ tàmbalee di sañ ci dëkk yi di euh, di bay bay yu rëy yooyu di taxawal naal yu rëy yi gis nañu sëñ Tuubaa foofa la joxoñ ne defar nañu léegi comme defar nañ xol yi nag nañ defar nag suuf si ci la tàmbalee jàkkaam ju rëy joojee ca njariñ gis nañ ne foofu ab joxoñ la li dalee boobee mu ko joxoñee ba ba ci sëñ Saaliw boobu lañ lañ topp mooy min al irfan ila al umran gis nañ ne priorité yoonu murid bi yépp dafa mel ne gannaaw bi ñu defaree nit ba noppi nañ defar suuf si rek la di defar ay dëkk di defar euh, ay jàkka ci la jumaa ju mag ji taxawe ci la naal yu rëy yëpp damay bañ a dugg ci détails yu bari ci la naal yu rëy yiñ def yëpp ci lañ ko ci lañ ko defaree minal irfan kon am gis nga priorité minal irfan ila al umra kon euh, ci gàttal ci nit ñi wormaalee al awlawiyaat noonu lu ñu am ci lañ ko amee léegi nag suñu joone yàlla ji mi ñuy tool dafa mel ne niñ tàmbalee fàtte lu bari ci njàngaleem sin bi loolu dafa dañoo tàmbalee laalaat ndax bu ñuy xool léegi dafa mel ne ay xew ay xumb ay xew-xew lañ gën a jox solo ci yar ay tabax moo ñu gën a yitteel defar nit maa ngi jéegul nag bu bu kenn jàpp ne nag kenn laa bëgg a wax man sama bopp laa tàmbalee ma man man yàq gi ci man la tàmbalee yàlla ma yàlla defar te defar ñëpp waaw kon am na lu tàmbalee am dañuy jàpp ne dañ ciy laabirante rek ñun ñëpp te xam ne maa gën a bon ñëpp man mi wax léegi nag loolu bu ñu ko bëgg teelut a saafara teel a bàyyiwaat xel fi ñu Sëñ Tuubaa rëddal ñu ñu ñu tegu ci nii lañ daan sottal mën naa am duñ ko mën a sottal ndax kam min fiatin xalilatin xalabat fiatan kathira bi la li ko waral mooy alo ñoo fi'a kathira boobu mooy aw awlawiya rek dañoo dañoo respecté loolu fi'a lu ndaw waaw binaaw insaan mooy priorité jamono jii ñu toll nag mooy riyaabul awlawiyat taxdiidu kenn taxdiidul awlawiyat yi fii loolu feeñ na baax a baax ci ba ci sax liñ na mën a jël suñu alal def ko ci da nga gis ne ci wàllu tarbiya te mooy rakiisa mooy ligg bu ñu doon wax ci wàllu sulumul awlawiyat mooy mooy mooy far mooy farata bi mooy fondement bi boobu fi mu ne nii mi ngi jooy ñu ngi jooy bu baax a baax macha allah bàyyi nañ xel bu baax a baax lu mel ne kii wàllu umraan defar dëkk bi ñu ngi ci waaye ba ci biir defar dëkk bi war nañoo xool tamit sulumul awlawiyaat lu mel ne ci fajukaay yeeg nekkiinu nit ñi masalam jàkka yi nag liñ fi def moom macha allah dafa mel ne sëñ Saliou ju joxoñ nañu sëñ Saliou joxoñ nañu ndax moom bi mu dajalee alal ji nag comme dafa mel ne al umraanul muridi umraan la boo xam ne dafa tàmbale minal dafa tàmbale horizontal la vertical dafa jub jub wuti yàlla bi mu demee ba àgg nag daal di nag uh, ufuq yi nag mooy defaral nañ yàlla ba noppi nañ defaral nit ñi nag sëñ Saliou dafa mel ne doomi sëñ Tuubaa yëpp dañ nañ defaral yàlla bañ defaral jàkka joo mu àgg mu ne kon nag nañ defaral nit nañ liggéeyal yàlla ci nit ñi nañ defar tëli yi nañ defar yoon yi nañ defar dëkk bi loolu alal jam dajale woon loolu la ko doon def kon nag moom it joxoñ nañu comme ni Sëñ Tuubaa bi mu fiy jugee bi mu fiy jugee defar jàkka ne nag digale ay jàkka de kon euh, li ma la wax min al dafa mel ne joxoñ nañu waaw rawat na sax umraan boo xamee moom wax min allahi ilal insaan loolu loolu luy teggin waaye waaw di xool di xool xool xool xool yàlla ci nit ñi dafa mel ne sëñ Saaliw joxoñ nañu ko baax baax waaw kon jamono jii ñu toll waraat na al ñu defaat ay ijtihaadaat bu baax a baax ay ijtihaad ndax euh, dafa mel ne ñi bëgg a fàtte suñu wasifa suñ tubaa dafa ne zurriyatan tayyibatan tujaddiduna jënd bi masar tëccaxidu ñaari sifa la ñu ñaari ñaari melokaan mooy ay al ijtihaad wa tajdiid ñaar yooyu nag saa suñ ko neeñalee rek daanaka dañoo war suñ tubaa mooy il faut ñu taxawee suñ warteef ci yeesal mënuñoo ñàkkit di taxawee suñu warteef ci ijtihaad ijtihaad mooy di jéem a gëstu di sonn ci nu ñu dundalee njàngaleem sëñ bi nuñ ko tegee ba waa jamono jariñoo ji dafa mel ne jamono ji manqué na jamono ji dafa mel ne lii priorité mooy wut ay expert ay am mbooloo moo xamee ne dañoo xóot géeju ci lépp ñu teg ñu gëstu ci mbindi sëñ Tuubaa génne kon ni may génnee ci lii fii muy fiqu law law yaat génneel ñu na ko seen blaat seen blaat defoon na ko nee na sëñ Tuubaa li mu bëgg ci dëkk bépp mi ngi ci Matlabul Fawzayni léegi xaaritatu tariq fii ak nangami téeméeri at wala fii ak nangami at yi lan la yoonu murit war a sottal ci ñetti domaines yi ñetti murit yoonu murit liggéeyam man ci samay gëstu du ma wax ne nag fa la yemagul ci ñett yi laa gis mooy defar nit defar société defar àdduna ñett yooyu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mission lan moo ñu la ñu war a liggéeyal yàlla ci defar nit ci wàllu éducation wàllu yar wàllu forme formation lan lañ ñaata nit lañ ci war a defar ñaata cadre lañu war a defar ci domaine bu ne ci wàllu diine ci wàllu gi wàllu gu ne loolu muy taxti taxti loolu lu jarra bàyyi xel la ci taxadiyaati awlawiyaat fii fii la toll ndax buñ tax tiitut duñ xam luy awlawiyaat yi duñ xam lan mooy priorité yi li gën a jàmp bu ko defee dañuy tañaxu rek te boobaa ndax jeexit ji ñu waroon a jeexital dëgg dëgg dana des kon war nañoo fexe ba lii fuqahaaw yi ak usuuli yoon yi defoon def seen ijtihaadaat ba mën a génne benn su sulam def ne lii mooy daruura la lii xaajiya xaaja la lii kamaal la ci usulul fiq dafa mel ne ñu nit ci li ñu sëñ Tuubaa jàngal war nañoo mën a fexe góor-góorlu ba génnee sunuy li ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa ñu génne ko defal ko ab ab awlawiyaat ba xam tamit waaw maa ngi loolu ñu ngi jéglu ba Euh, war nañoo fexe ba farlu ci loolu ba mën a xam ne li gën a farata nga xamee ne munta ñàkk lañ koy tudde ak loo xam ne dañ ko yittewoo ak loo xamee ne kamaal la bu ko defee loolu dana tax ku jug bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa da xam fa ngay tàmbalee ndax da ngay tàmbalee ca li gën a dee farata li gën a li gën a jàmpadi bàyyi li gën a farata boobaa euh, euh, dana dimbali baax a baax ci doxin bi kon lu jar a bàyyiwaat xel baax a baax tamit ci nasru daawati sëñ Tuubaa man fi mu ne nii ci awlawiye yi gën a jàmp la jamono ji ñu toll waaw alhamdulilah Cheikh Sidul Muxtaar xam naa ab cëram la ndax moo lii baayam yi sémbu woon taxawal daari sëñ Tuubaa ji yàlla yàlla na ko yàlla mottale ci loxom bu boobaa nag daara ji bu amee ñu am ay jàngukaay yoo xamee ne dinañ fa jàngee nu ñuy fiire làkk yi nu ñuy génnee mbind Sëñ Tuubaa ci arab na yaaraam gii yóbbu ko ci làkki wolof mi yóbbu ko ci làkki tubaab yi ak làkki adduna bépp boobaa njàngalem Sëñ Tuubaa mën a tas alhamdulilah daara jii nga xam ne sëñ Sidi Muxtaar yàlla ci loxoom la ko nar a jàllale bu àggee dana dimbule ñu am ay jumtukaay yoo xam ne danañ tàggat ndaw ñi ci nan lañuy ñuy mën a fexe ba tas njàngaleem Sëñ Tuubaa ci du tasum xel rek wala wala diggi laak waaye xam ci wàllu communication ci wàllu xam nit xam aaday nit xam aada aaday réew yi ak lam laaj jëflante ak ñeneen loolu li feeg defuñ ko nag waaye di dem bitim réew rek ñu ni neen ñu dajaloo waat nga xam ne ñooy def suñuy màggal yi ñu ni neen di ko waxaat suñuy làkk yi ñu ni neen yaakaar naa ne sëñ nag li mu indi ëpp na nag Bawol ak Kajoor sëñ Tuubaa li mu indi ëpp na nit ku ñuul moom euh, waraa lay wax waraa kon ëpp na sax humanité waraa alxalq li yàlla bind lépp comme wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kii dafa ñëw wuutu yonent sallam ki mu wuutu mooy yërmande yàlla ci li yàlla bind lépp kii xéer gi mu indi li yàlla bind lépp la te li may wax moo ko waxal boppam am na naar bu ko mas a tagg ne ko lakin lahu xasanaatun hunna law qusimat bayna yowmal yowmal jawa bayna ahli l ardi maxtaraxu mu ne ko déedéet bul wax loolu neel buñ ko buñ yàlla dafa ne yàlla naar bi defe ne ko yàlla defal na koy xéewal yoo xamee ne de buñ ko séddale woon waa suuf yomal xiyaam kenn du ci lakk mu ne ko tuuti na ci buñ ko séddale woon ah bayna ahli samawaati wal ard li yàlla bind lépp buñ leen ko séddale woon kenn du ci lakk waaw kon ñu bëggoon nag yemale fii ba wala kajoor gii alors tuuti na ci nag sëñ bi bu yomal xiyaamee waa waa waa waa waa waa Arabie Saoudite وقطر واندونيسيا وماليزيا واسبانيا وتوليدو فنزويلا دنا ني بوني يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى ني بوكو خاج مين دي كون سون ورتي فو ماغا ماغلا كون نانكو خامني سي بريوريتي تومبو بو ياتو ياتو لا te xam naa ne borom xam-xam yaa ngi fi te war naa am lu ñu ci indi te it buñ ko bàyyi àggalee ko ci laaj tontu da dana gën a mën a indiwaat lu baree bari ci liñ bëggoon a wax yoo xam ne dañ koy junj rek waaye xam naa duñ ko mën a leeral kon ñu yem foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi la boo xam ne moom ñi doon def bi mi ngi ci bind ab téere boo xam ne daf ko tàmbale soobee yàlla xëy na buñ ci àgg ak jàmm mbokk yëpp danañ ci jot du ñàkk tamit luñ war a gën a waxtaane war la ci yeneen i jataay bu mu gën a yàgg ndax day topp bu am solo boo xam ne euh, manis naa wax ne sart la sart la condition la ci ñun ñi nga xamante ne nii ñoo wuute magi Serigne Touba yi ñu mën a def lañ defoon te dañoo dañoo war a def lañ defoon ba def du ko ëpp ndax Cheikh Abdoul Ahad bu ñuy fàttali ko ci ay waxtaan am na lu mu ñu waxoon dafa waxoon ne ñi àndoon ak Serigne Touba buñ ñu ëppalee ci Serigne Touba dañ ñu ëpp jom donc waaye Serigne Touba moom fa nekkoon naa ba léegi ku def la ñoo defoon rek mu defal la loolu leen defaloon kon loolu mu wax ne Seexul Xadiim dafa njëkk dafa génne boppam ci nit ñi dem ci boroom ba defaru ba noppi dellu si waat ci nit ñi ngir defar leen loolu dafa am ab joxe bu mu joxe mooy nit ñi tamit tam bu ñu leen defaree ba noppi ñoom dañoo war a jug defar ndax defar nit moo fi nekk ak ndax suñu borom dafa bind doomu aadama andi ko ci àdduna ngir mu jaamu yàlla bu jaamu yàlla bu noppi mu def inna allaha ya'muru bil 'adli wal ñu fexe ba am ci kaw suuf jëf yu rafet ay nit ñi di set lu rafet ay jëflante yu tax àdduna dem bu ñu aj bu ñu noppee ci loolu tamit ñu war a dundal suuf si lépp li nga xamante ne nii ñi ngi koy def ci kaw suuf jullit yi ñoo ci waroon a jiitu ñu bi Sëñ Tuubaa ñëwee ba tey jii tamit murid yi ñoo ci war a te ni ko sëñ bi waxee ay exemple yu bëree bari jaar na fi wax na li nga xamante ne ni taalibe yi Serigne Touba ak ñu àndaloon nañ ko ci yoon bi misaal bi ci joxe muy dëkk bii nga xamante ni fi lañ nekk tey bi fi sëñ bi ñëw ay rab lañ fekkoon tey jii mu nekk ñaaree ñaareelu dëkk ci Sénégal te ci kanam tuuti mu nekk mu nar a nekk dëkk bi jiitu ci Sénégal yu bëri war fi yoo xamante ni mooy tax ak dëkk mën na nekk mën na nekk nekk bu wér waxuñu ñu nekk fi nii rek. ba noppi ñëpp di jàmbat loolu taxut ñu sëñ bi taxutoon nañu sëñ bi te sëñ bi ni mu ko waxee maanaam ne lii ñu doon waxtaane day mel ne lu bees ndax euh, Yuusuf xaradaa bi sax diraasa bi ñu ci def nga xam ne diraasa déedéet la tuddee lu bees donte ne moom bi mu ko defee xaw naa après tuuti waaye da nga gis ne Sëriñ Tuubaa toujours day jiitu jamono ci nekk bi nekk mu jël la professeur Malick Ndiaye doon doon doon wax ne moom bi muy gëstu ci Sëriñ Tuubaa dafa gis ne bi mu jëlee ne bi mu dinaan dafa